leeral téere bi muy kàddu sunu borom boole ko ak tontu quelques laaj comme niñ ko baaxoo di def jeexal nañ nag saar bi biñ doon wax suratul insaan moom lañu jeexal defe naa nag mu ngi xaw naa jege ay weer yu baree bari ah, bañ ko sumbeek léegi mat na ay weer yàllaa ngi doog dogal mu jeex ñu war a sumb nag beneen saar boo xam ne ci lañu war a jàng saar boobu nag moo tudd sóoratul qiyaam muy taxawaay bi nga xam ni su ëllëgee moom lañ fas yéene taxaw ci kanam sunu borom mu àtte mboolem taxawaay yuñ defoon ci àdduna bi lu waaye defoon ci àdduna bi rek loolu nag jarul tiit jarul jàq jarul dara sunu baay bu baax baay alaaj ibrahima saaxo radiallahu anhu dafa am bis xam nga rek caxam yu neex yooyu muy def di ñaan ci tànt bi ne mbooloo mi yal na benn gàmmu yal na ngeen dem aljana ñépp ne amiin mu ne yal na ngeen dee ñu ne tekk mu ne waaw aljana ndax ku deewul dañ ci dugg ñu ne ko déedéet moo tax mu ne mu ne leen kon nag yàlla na ngeen dee nga yëg ni nit dafa bëggul yomb xoolal ki bëgg asan dugg aljana te yoon wam war a mën a jaar dem aljana mu ne du fa jaar i ñuy ñaan aljana yépp il faut nga dee doog faa dem koo ne yal na nga dee mu ne yàlla tere koo ne yal na nga dem aljana mu ne amin te yow mënoo dem aljana te jaaroo ci dee donc nga xam ne góor gi daan na leen tax moo tax da daan toom yàgg ne yal na ngeen dugg aljana ñu ne tant bi yépp di riir amin mu ne yal na ngeen dee ñu ne tekk waaw léegi te màbb ndooy yal na nga feye ko salaire amiin yal na nga liggéey mu ne tekk Babacar Jéy yal na nga am xam-xam amiin yal na nga dem daara kokki mu ne yàlla tere waaw boo demul daara ja jàngi nooy amee xam-xam inna ma al usri lépp loo soxla ci àdduna lu mu mën a doon daa am fooy jaar ba jot ca la nga soxla nag danga nga ko fay bàyyi seeti fa nga war a mën a jaar ba jot ca nga jaar fa dem waaye bëgg ngërëmu yàlla te doo def lim bëgg bëgg dem aljana këram te doo def lu fa dugal moo tax mu daan wax ne yal na ngeen dem aljanna ñépp bég ne am yi gis nga boo seetloo asan euh, waxtaankat yi xam nga nit ñi kuñ gën a bëgg ki yoloomal mbir mi ki leen di dajale di dugal aljana rek ñuy tàccu waaw ah waay waaye waaye oustaz conférence yal nañ ko fi def déwén te yow wóor na leen li ngay wax ci kanamu nit ñi dara wéru ci ndax li nga gis ci mbooloo mi su fekkee looloo continuer li nuy wër ci yàlla duñ mën a am loolu wax leen ko rek wax leen ko ñu xam ni ñun que lii ñu def baaxul benn ñu continuer di ko def wala ñu dem ba mu yàgg seen xel yedd leen ñu bàyyi ko xam nga wa ma ala rasul illa al balaax waaye al mubiin moo ne ci kanam balaax nag ñëw na waaye fépp foo gis balaax ci mubiin ñëwul du jàll foo gis imaan te amalu saalix ñëwul wérul nit mënta gëm te du def lu baax nit mënul it ne day wax nit ñi te du leeral ba mu yegg ci nañ ñi muy mu biir na jot ti leer nañ ñi soo dee wut ci ndoy dara nag mënoo ko ku bëgg ci nit ñi dara mënoo wax lu leer ba yegg ci nañ waaye asan ku gëm ni bindoo sa bopp gëm ni dundaloo sa bopp gëm ni doo may sa bopp man ngaa maslaa nag bañ defee ne dangaa ñàkk fayda man ngaa maslaa it bañ defee ne jekku nañ la fekk sa maslaa la gaynde lum foofoo kàttan laa nga fa ba tey jaan loo ko min min dangar jaa nga fa ba tey moo tax olof ne jàppkatub jaan jaan na koy mujjee miineel gaa tax da koy miin ba léeg-léeg mu seex ko miin ngam koy miin nag day dem ba buy tëdd na jaratul may jat jaratul ma jat ba mu bàyyee jat wa nag la war a repp jaan jëna xam ne la ko téye woon ba mu nekk ak nit ti du nit mu dem ba nit bëgg koo wàll jikkoom secret ba rocceeku na mu wan nit ne ko téye woon nit jaan nga téye ne ko cappit mat mu rey ko miineel baaxul sëriñ Babacar Si radiyallahu dégg naa dañ ko laaj ne ko taalibe dëkk ak sëriñam ak sori sëriñam bu ci gën sëñ Babacar ne mu sori ko Assane Diop na sori Alioune Sall ñu ne lu tax ñu ne boo dëkk ak sa sëriñ mën naa gis ci yow taalibe bi lu mu la xeebee ki koo xeeb dootoo ko mën a jëriñ wala taalibi bi ci sëriñam lu mu ko xeebee koo xeeb dootu la mën a jëriñ kon bu ngeen sóoree umpule te kumpa day tax yoon yoon yegg kumpa dana tax yoon yegg buñ demee ba yegg nag kumpa ga dañ fekk yegg nañu moo tax sëriñ Babacar ne taalibi ak sëriñam sóoree ga moo gën jege ga ah boo demee ñun ñu nekk ci kër sëriñ si dañoo miin ba mëpp sëriñ bu wax sa nga romb koy dem nga gis koo xam ne bu sëñ buy wax muy lox boof boo dammee mat sax jéppi na la yow yaa ngay waxtaan di teen mu ngi wax suy ñuy déglu yaa ngi yàkkamti bu dagg la muy wax te kii toog bëggul sax mu arrêté waxam miineel baaxul moo tax sëriñ Babacar Si ne sori sa sëriñ moo gën dëkk sa sëriñ su ngeen soo ko jegee man ngaa gis ci moom loo ko xeebee ko xeeb sa docteur sa jàngoro rey la baa sëriñ bi gis ci yow lu mu la xeebee ku la xeeb du la jox cër kon dàndante boo demee ci borom taalim sax loolu la lay jàngal dàndante miineel baaxul moo tax gis nga boo gisee ndooy ñu bëri sénégalais soo demee ba am yenn ndomba tànk yi soo amee yenn ndomba tànk yi da ngay mujj yor beneen jikko parce que ndóoy mi ñu xamoon ci télé bi mu nekk fi di liggéey ndóoy bu demee ba mu yàgg ñu fal ko ministre wala ñu fal ko leneen su ko fa Iran fekkee day bëgg a kafak moom ndam noon kafeek moom ca télé ba or que nit am na nit ku ne danga koy téye cër ba mu yor am na cër bu jaru am na cër yoo xam ne laajul kaf laajul tooñ du nit ki cër ba la waaw ndoy fi mu ne nga fekk ma nii may tafsir nii ma toogee tafsir nga taxaw fi naan Iran sax waa na nga def yaa ngi ci tafsir bi est-ce que loolu nite na mais li ngay wax day feeñ fi nekkee Iran la waaye lii mu tiim du Iran kàddu yàlla la kon dafa am ci bërëb bu mu toog am ci liggéey bu mu ne léegi dootuma xool Iran rek damay xool ca la mu toog nit da nga koy xooli cër bu dee Macky nit la kum nit ñi xam nga mag Macky nit la Serigne Cheikh nit la Serigne Sidi Maxtaan nit la ministre yi lañu mais nit ku rax la yi dañ caa boole président de la république kon moo jiite Sénégal yépp kooku fa mu toog loola ngay jox cër Serigne Cheikh mooy jiite yoon wi di magum kër gi nga jox ko cër boobee sëñ Sidi Maxtaar nga xoolee ko si Ahmadou Bamba moo tax nit bu xàmmewul danaan ñépp a yem waaye soo xàmmee xam ne ñépp yemuñu sëñ Sidi Maxtaar yemul ak yow sëñ Cheikh yemul ak yow président yemul ak yow parce que tey président bu noonu tëll ñu wàcc la yoon pousse te nee ngoon tax nañu dàq la nga nga su ñu dóor la liif yeb la ci oto bi denc la rëbës moom mu dox la muy dox ñibbi paleem jaaxan ci li muy sàkk du ñëpp yam ñaq waa ngi lay maa ngi koy rey doo reer reer na ba bay bay yamuñu nit day nite waaye miineel baaxul boo gisee ñu bari am yenn caractères yi bañ ko leen dugg rek olof bu lay dugg rek su la miinee nam la téye woon da koy dindi moroom la lay def lu mët di bàyyi xel la moo tax sunu borom bëggul nit di naagu nit it bëggul mu xeebe nit ki doo téye ndooy en tànk que ndooy da ngay téye ndooy en tànk liggéey bi mu nekk fi mu ne caméra ko wër mu ngi piis fi di jubbanti fi di jël fële léegi ndóoy beneen ndóoya ngo su paree ci liggéey bi nag léegi ndóoy caméraman jeex na simple ndóoya fi ne man ngeen kaf ree lem doon def pare na nit xoolal ca la mu toogee bul xool ca la ko miinee di ko sénégalais la dañuy soxor nag daa hiw ñoom pour ñoom kooku mu ne nit nit la rek non nit nit la d'accord mais nitee ko gën moo tax sunu borom su ëllëgee ñëpp <clears throat> bu ëllëgee ñëpp taxaw ci kanam sunu borom lépp luñ luñ doon def ci àdduna borom bi àtte ñu ko waa tribunal kay ku def ay délit il faut ñu àtte la ka deful délit il faut mu teew parce que moo porté plainte ñu bokk loo toog moo tax ëllëg olof li mu naan fa mbaxana doonee benn du fii àllaaxira la kenn lañ fay yaakaar kenn ay àtte kenn ay def lu ko neex muy sunu borom fii fii sëriñ bu mu neex boo demee tribunal doo sumi sa mbaxana ndax kay àtte sa taalibi la loo ci sumi <coughs> loo ci sumi mais yàlla sunu borom kan la doon taalibeem ñépp ay ndongoom lañu moo tax bu ëllëgee ñépp naan wew taxaw yàlla fas leen yéene àtte nag àtte bu leer parce que itam lu leer baax na xam nga kii waxtaan ngay puus ay affaire def ci kanam bët yi bu koy gis mën a yàq la muy def donc dañuy bëgg lu leer ci àtte moo tax yàlla bu ñëwee ëllëg ñu ne ci sunu kanamu borom daf ñuy àtte lu leer yàlla nag dara du ko rëcc dara du rëcc yàlla mais bu dee Iran am na lu koy rëcc léeg-léeg kam yow ndooy yaaw yaa ngi nii nga yor caméra di filmé dem ci événement am lu la rëcc nga ne tee ñoo laaj RTS est-ce que amuñu ko wala 2 est-ce que amuñu ko wala wal fi est-ce que amuñu ko mais il faut wala TFM est-ce que amuñu ko il faut nga laaj ndax euh, journaliste tel tel est-ce que jëluñu ko ñoom nga jël mottalee ko sa élément mais du dal yàlla nit il faut am lu ko rëcc mais yàlla dara du ko rëcc lépp ci kanamam la ne kon nañuy leeral ba yegg ci nàññi bañ yem ci leeral kese li ci poosi nit ñi lu ci sa wërsëg ne ba danga ko jël boo yoree sama junne danaa ko lekk boo ma yoree sa junne da nga ko lekk soo yoree sama million danaa ko jël su ma yoree sa million da nga ko jël gis nga lu fi waay yor lu ci nit moom danga ko ko jox dara nga ci manul nga iñaanee ko mu neex la mu naqari la ngeen juboo ngeen xuloo ku loo moomul yàlla dina ko jël jox ko borom si nga yooyu boo ko gëmee màbba yi ñuy defloo nit ñi kenn du la ko defloo man nga am kersa nag ruus Iran jox ko cër def ko sa mag su Iran xamee ruseel ga xam cër ga xam ne da koo def mag ànd ba neex su ci Iran bëggee dëgg nag defe ne da ngaa di nga sàllar ko nag wan ko ne ko doo kenn dama defoon ne mat nga li nga doon nekk fi ma fo fi ma la njortee nekkoo baa doole kenn du ko séddi cër day daw ci sa kaw waaye nit ku nit boo ko joxee cër day téye cër ba dolli ca delloo la ko comme jigéen juñ ndayale jigéen ñaa ngi def lu am solo di doon te xaraam na jox nit dara mu dolli ca delloo la ko as góor bu la joxee cër jëlal sa cër boole cëram jox ko waaye nit jox la cër seen la jóg taxaw jox la ñaari loxo màggal la nga jox ko ca tibaaram di ko doye dal soo léegi bu ma la séenee du ma jóg ba di la jox loxo ak koo mën a doon parce que xam naa ne moomoo li ma lay jox sénégalais xamul lu yomb de koo fi jox cër du ko xam koo fi jox cër doo ko xam soo waxee ci nit lu baax sax mu defee ne moom ak ak matam la yow sax doyee di la mabba wax ci Iran xamul Iran jàpp man sama mat la mais mabba dafa doyee di non jàppal ne mabba ku baax la ndax li wax ci man mais man Iran liñ ma waxal dara nekkul ci man c'est ça le problème loolu dañ koy xam ay ca sadaqallaahu l-aziim kii moom day laaj euh, tafsir <laughs> ndax ku julliwul suba ndooy julliwuloo suba ndax mën nga koo dabu te sibaar déedéet waxtu woo bañi julliwu suba ba biddanti waxtu woo yee woo julli ko kenn waxu la bàyyil ba tisbaar nga julli ko doogu julli tisbaar déedéet ndooy julli woo tàkkusaan ba timis julli tàkkusaan julli timis julli woo eh, timis ba julli timis julli gée julli woo suba da biddanti nag yow 10 heures jullil suba bul xaar ba tisbaar nga ne su ma ko jullee boole leen déedéet julli gum mën a doon mu rëcc la foo ko fàttali ko jullee ko fa waaye julliwuma suba dama koy aj bu may jul tisbaar boole leen daganul ñooñ la alquran wax ne prison bi yàlla liggéey di ci denc ñi dëng boole na ci ñiy jullit duñ ko respecté fa waylun lil musallina alladina hum an salaatihim saawuna kum mën a doon ci yéen marchand ambulant beeg xaw ma ay nangam nangam ak chauffeur yeeg coxeur yeeg apprenti yeeg ñu yor mayga yeeg ñu yor euh, euh, pension yeeg ñépp a ci yem fu julli jotee arrêté lépp dem julli xam ne borom jaam yi soxla na la ci li nga yor moo la ko jox ci li nga mel moo la bind bu soxlaa jox ko lim soxla moo am nañu rang ci passion bi da ngay gëdd say ñam waaye gaawal jox ñi añ bi seen toogaay yàgg na yàlla ne la waaw tax man joxoo ma sama añ ci sibaar jot na julli loo ma yaa ngi nii julli ko yaa ngi ci waañ wi rek tàkkusaan jot nga dóor ko ci timis sa ngi nii jullee ko julli woo gee yaa ngi séddalee reer léegi nag ba xaaju guddi nga ñëw bëgg a babas babasee samay julli te ñi lay liggéeyal gëdd nga waa restaurant bi waaye jox li nit ñi lekk bu leen ko dëjee sii nii da leen kaf ak nit ñi da leen def nii bëgg doom aadama bi am lim bëgg te bëggo jox yàlla lim bëgg ay ca li ñu amoon ci waxtu wi jeexna na ki doon def tafsir quran bi seen bokk Iran daw lépp lu ma ci jum yàlla mako yàlla jéggal lu ci jub yàlla ko yàlla def yu sotti ko ci aduna bi yépp ñu bokk ko jëriñoo ba suba ci waxtu inshallah bismillahir rahmanir rahim qul huwa allahu ahad